Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. groupe Equivox ah muy euh, émission bi may def ak yow nii muy Vox na ñu daal di ko labelliser ñu dugg ci làmb ji ren incha allah ñu euh, indi ay affiches yu am am solo ñu indi Tyson 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Franc ñu tëgg aussi euh, Mama Lamine bu Lansar ak ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 mais ñu commencé ci Tyson de ak Franc. na nga gisee affiche bi. xam nga Tyson 2 ak Franc combat bu neex la yow tu es mon dañuy waxtaan si lu bëri si suuf euh, ñaanal naa la si Equivox ñaan mu nekk télé bu mag mag ambition yi ngeen am tey événement yu mag yëpp yàlla def ngeen réussir ko bi mu taxawee aussi def naa def naa la si ñaan si ne yàlla na yàlla def lépp sotti combat la boo xam ni xam nga euh, Tyson de presque boo seetee niveau bi mu nekk rek fa lay nekk mais presque daan yu bari mais benn niveau da lay nekk rek parce que dafa am ténor yoo xam dañ ko war a jël mais dañ koy éviter mais Franc dafa nekk euh, bon jeune buy yéeg actuellement kenn mënul calculer Franc kenn ku la wax ni la mën na calculer Franc actuellement dalay lay nax ba pare dafa beneen avantage bu nekk ci moom mooy dafay mbappat te tey gars yi booy mbapat pour ñu jël la dañ lay calculer parce que dañ naan day compéti day day day compétir donc combat boo xamante ni. naqari naa def pronostic ku si nekk mën na daan sa morom wallaahi combat la boo xam ni neexul def pronostic Tyson 2 kenn mënu ko calculer franc it actuellement ku ne mën nga ko calculer danga koy da koy limiter yaa ngi juum champion dëgg la. kon man tey cinquante cinquante lay def cinquante cinquante lay def franc 50 Tyson 2 cinquante ndaw combat bu neex euh, ki nga xamante ne moom mooy Mama Lamine nekk Lansar nekk ci yoon macha allah moom it mu war a bëre ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 Garga 2 nekk ndaanaan moom tamit ci bëre nan gisee affiche bi. waaw affiche bu neex la affiche bu neex la parce que Mama Lamine combat mi mujjee yi laa laa suivre mais booy ba am ambition la booy ba am gëm-gëm la mu ngi si voie bu bu baax. Euh, Garga 2 aussi dafa am retard moom maa ngi moom yaakaar naa bokk nañ journée. mais sama rakk la gënoon a miinanteel muy may Maysa waaw mais daan naa ko wax ni ko bu amee encadrement dëgg war na mën a doon champion man sax seen tuut naa ko fu fu gën a kawe fii mu nekk nii mais mais mayaat nañ ko chance tey waaw mu nekk euh, combat des espoirs laa koy tudde yoo xam ñu ñu war a yéeg fekk si waaw Mama Lamine combat bi ma mujjee seetaan defe naa moo Bour Sine la waaw wane na fa jom wane fa jàmbaar wane fa bëre et puis gëm-gëm la waaw lu mu maanaam actuellement gëm-gëm lay bëree Garga 2 it champion la boo xamante ni kenn amu si looy wax donc dañ leen di ñaanal rek euh, ñi nga xamante ni mooy waa Equivox décroché combat bi liñ siy bëgg yëpp ñoom ñu ñëw jox leen ko ba ñu gën a am envie te gaat yeneen combat. amin yàlla ko yàlla def ki nga xamante ne aussi dama la bàyyi mooy Sa Garga euh, mboose taxaw. boobu nekk combat boo xamante ne combat bu am am solo la. oui combat bu am solo la combat bu neex la xam nga dafa am làmb dafay am trois catégories ou quatre mooy tey boo dee ñun ñooy VIP dafa am ñoo xam ne ñooy nekk si ñoo ñuy topp am ñeneen ñu siy toppaat tey Sa Thiès demoon na ba am sens boobu tey mook Boy Niang ku daanoon rek dangay ngay dugg cour des grands donc booy Niang daan ko moom it dafa am lu ko topp mooy déjà doomu mbër la rakku mbër la. am na loo xam ne duñ ko ko pardonné wax naa ko léegi de euh, dafa échec si Boy Niang def année blanche donc jëlaat gargamboose Mbossé aussi jóge si Moussa waaw day amaat confiance si si si boppam donc kon mënul nekk combat bu yomb te Sa Thiès aussi li ma la sànq laa lay waxaat rek euh, si Boy Niang mënul jóge si defet si Boy Niang ñu ne dafa juum mu dem jël Garga Mbossé séentu fa defet foo amaatee defet kenn du ko pardonné kon nag combat la boo xamante ni combat bu difficile la ci moom. moom Sa moom Sa Thiès bu difficile te ku daan ku daan Moussa dangay amaat confiance sa bopp da nga naa mën nga daan ko nekk. te garga état bi muy indi moom musaandooy Ndoye koy dee moog Sa Thiès di nga gis combat bu métti. bokkul la. garga day xaar. te Sa Thiès combat lay def. moom day bëgg day ñëw ngeen jóge fa léegi gëm-gëm la du ma du ma ko si du ma ko si wax dara lu mu gëm la mais garga dama gis ko yi mu jépp day tey xaar te dafa am arrêt su baax donc moo tax euh, même buy dem ci kaw garga war na xam nan lay demee ak lan la fay fekk donc garga it yàgg na wax ni pour mu wane boppam dëgg nañ ko jox Sa Thiès kon combat la boo xamante ni combat bu neex la de waaw. mais nag actuellement position yi ñu nekk li ma gisagum nii nii nii si Sa Thiès la combat bi ëpp pression que Garga. waa ndax fi mu jógee xam nga làmb moom làmb dañuy wax ne heure boo jógee si victoire rek da amaat confiance da ngay positionné wu boo jógee si défaite nag tant que amaatoo victoire doo positionné bu baax voilà donc xam naa ne di nga ko pardonné kon moo tax lu mu mën si combat bi na ko def maa ngi leen di ñaanal daal que le meilleur loolu Leewtoo Leewtoo moo fa jaar ah Babacar dégg nga li nga xamante ne moom la ci jee wax alors fi ñuy jeexalee moom mooy combat biñ doon waxtaanee léegi ak président Malick Gakou euh, muy guy gi ak ki nga xamante ne moom mooy rëg mu nekk combat boo xamante ne bu doy waar la rëg-rëg mën nañoo wax ni fekk si gars yi te yàgg nga koo wax aussi rëg euh, mu nekk koo xamante ne valeur sur la mais ki nga xamante ne aussi moom mooy euh, guy gi mu ngi jóge ci victoire bu am solo diggante ma ki nga xamante ne moom mooy euh, voilà Siteu nan gisee combat. waaw xam nga combat moom lambo jooju sama position ni mu ciy ni mu ciy demee la xam nga yàgg naa wax ni rëg moom ñaar rek a fi nekk du sama mbër wala neexuma mais du mbër moom kenn du ko wax walla mënul daan kii si làmb moom gen du ko wax yàgg naa ko wax fépp moom da naan du sama mbër wala nga ni neexuma wala mere naa ko parce que daan na sama mbër mais champion moom champion dëggantaan la moom dama koy jëloo du ma ko jël moo fi nekk guy gi guy gi sama goro la guy gi sama goro la te ku nekk sa goro nag day daal di nekk sa mbokk mais nag pour leeral aussi ne leen ni man làmb euh, tollatuma si foo xamante ni damay am damay am nu may nu may taxawee waaw nit ku si nekk ni ma téye noonu lay téye guy gi sama mbokk la parce que sama goro la dafa taxaw fépp wax ko man tamit damay taxaw fépp wax ko rëg-rëg relation yi ñu am relation yi bien la en tant que kuy laaj conseil donc il faut ñu comprendre fi ma waxee combat MMA bi bi mu si bëggee dugg daf ma woo waxtaan ak man ne ma dafa bëgg a dugg si MMA combat bi ñu defoon Sénégal mois de décembre man maa négocier contrat bi man maa waxtaan ak promoteur bi maa leen mettre en contact bi ma koy def dama ko def en tant que magum mbër magum sportif bu nekk ci MMA bëgg ay rakkam nekk ci pour mu leer loolu maa ko def waaye guy gi nag day sama mbokk di sama xarit kon leer na voilà noonu la mbir mi demee bi ma déggee taxaw na dama leen di ñaanal parce que ñoom ku si nekk yaay sa trésoru morom yaay ku nekk yaay may sa morom xaalis ku nekk yaay may sa morom yu mu yóbbu këram mais combat la bu neex parce que guy gi guy gi wax naa leen sànq tamit ne leen mbërle bi nga xam ne mënoo koo natt fenn te booy yi nga xamante ni yu bëri dañoo jaaroon si moom pour génn dañoo échec bi ko Ama Baldé jël Ama daa nekkoon favori cent pour cent mu yóbbu ko à l'usure bëri loo ko ba mu sonn mu daan ko bi ko Siteu jëlee it Siteu moo nekkoon favori à cent pour cent kon tey ah Reug Reug de bu jëlee guy gi war naa xam naka lay waajee guy gi it war na xam bu baax jeune bi muy bëreel kan la mu xam naka lay waaje xalaat naa dinañ bëri combat bu neex incha allah. Tay Shinga doomu dàggu école de lutte Songane Gueye. ndeysaan ñu ngi leew too Max Mbargane. ñu ñoom ñaar. Tyson 2 moo yor ngemb lu bulali. doomu dàngu moo yor ngemb lu weex. Tyson 2 déclenché na Bakar Tyson 2 gi xeex. déclenché na Bakar. Tyson 2 gi xeex déclenché na Bakar. doomu daanu Tyson 2 Tyson 2 daan na ko. waaw da ko agressé mayu ko mu xalaat. da ko agressé mayu ko mu nooyi mayu. ah Bébé Saloum day xeex ak moom Bébé Saloum day xeex ak Franc jàpp na ko jàpp na ko lamb ji jeex na wala jaaxu la ah kot daan na ko doole doole baajo bi. doole baajo bi Franc mi ku koy arrêté oh kii arrêté na Franc. Tyson 2 Gora Sock Gora Sock door na Tyson 2 jël Gora que diisul est-ce que diisul ñaata appui 3 appui 4 appui. Gora Sock Tyson 2 Gora xam ne luur la daw nañu jël Gora Sock ñu koy plaqué. Carousel day rëpp rëppati na. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.